asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 ni ñu baaxoo di ko defee ajuma ju jot lu ko dalee 18h jàpp 19h juróom-ñett jàpp juróom-ñeent ci la 97.5 ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu wérgu yaram euh, seen émission SOS santé ngeen koy teewlu vendredi bu jot euh, di ko teewlu itamit ci suñu site euh, www.rewmi.com te ñu am mbégte di dalal ki nga xam ne moom mooy euh, Amadou Moustapha Gaye nekk njiital listab listab di Ligue sénégalaise sénégalaise euh, de lutte contre le tabac di nag kuréel boo xam ne dafa ne fii ci réew mi di yëngu ci lépp loo xam ne xeexum pon la dañuy jox sunu auditeur kàddu gi bu ko defee mu nuyoo ak mbokki auditeurs yi. Euh, asalaamaaleykum man maa ngi tudd Amadou Moustapha Guèye man maay président ligue sénégalaise contre le tabac ñun ñooy xeex euh, lépp loo xam ni tux pon la ci réew mi ndax comme li ngeen ko xamee. tey jii Sénégal dafa jànkante ak li nga xam ni mooy tux boo xam ni ñëpp a koy def mais ñu ci ëpp mooy xale yi te xale yi je crois que ñun dañu war a def lépp pour que xale yi ba ñuy tux cigarette wala ñu ba laal ci pon wala yu mel noonu. Mm-hmm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci wuyu si bi ñu gis ne nag xeex bi daanaka yàgg na bi nga xam ne listaab mu ngi taxaw di xeex ci lu jëm ci wàllu pon ba euh, yàlla def ngeen am ci ndam atum 2014 ngeen dem ba amoon loi mun nga dellu si ci processus boobu ak coono yi ngeen ci dajoon. waaw depuis 2008 la ñu commencé donc am un projet de loi boo xam ne dañ ci liggéey euh, ñu liggéey ci ba nga xam ni euh, presque pare woon na euh, wante mu xaw a am ay yéex-yéex ndax il faut le dire mën nañ ko wax gouvernement bi fi nekkoon xëy na deful woon li mu waroon a def wala en tout cas peut-être amul woon volonté politique bi nga xam ni tey gis nañ ko Sénégal mm. ba nga xam ni bi en 2012 bi président Macky ñëwee Euh, la ñu sentir ni que les choses affaires yi commencé na bouger mais euh, dafa bouger dans le bon sens parce que euh, boobu la ñu la ñu sentir ne que état bi jël na jël na jël na projet de loi bi en charge après mu jël ko yóbbu ko conseil de ministre fekk nañu avant loolu def nañ ci liggéey bu am solo. Mm-hmm. dem nañu ci chef religieux yi nekk Sénégal yëpp. Mm-hmm. waxtaan ak ñoom pour ñoom ñu gën ñu jàppale ci xeex bi parce que xam nañ ne Sénégal dafa am réalité bu fi nekk. mooy que su fekkee dafa am loo xam ni da nga koy xeex euh, wala loo xam da danga ko soxla euh, dafa am yoon yoo war a jaar te tey loolu ñun yàlla dafa ñu defal. Mhm. fii ñu am Sénégal ay ay ay kilifa diine yoo xam ni ak ay kilifa aada yoo xam ni ñoom tey jii mën na leen wooye ay euh, porteur de voix c'est de grands responsables ñoo xam ni ñoom xëy na ñun bu ñu waxee ci ñoom ñoom daañu mën a intervenir ci niveau boo xam ni xëy na ñun duñu fa mën àgg mooy le niveau le plus élevé mooy au niveau peut-être du chef de l'État mhm. et sentir nañ ni que bi ñu ko defee euh, affaire yi aussi chan euh, am na lu ci changé lu bëree bëri képp koo koo xalaat comme chef religieux te Sénégal mhm. ñun dem nañ ci moom comme ñu ngi commencé déjà Euh, par euh, l'église ñu ngi commencé par euh, monseigneur Théodore Adrien Sarr la ñu ci dem seeti woon mhm. après ñu dem tuba Tivaouane Ndiassane dem seeti chef religieux yëpp te loolu bi ñu ko defee gis nañ ni am na nja parce Euh, sentir nañ ni ko ñoom aussi certainement seen seen ay euh, intervention au niveau de l'État ak ak prêche yi ñu doon def di ko jëmale ci xeex pool ci cigarette ak yu mel noonu mm-hmm. am na résultat ba nga xam ni après projet de loi bi dañ ko jël yóbbu ko assemblée nationale et unanimement tous les députés de la douzième législature ñoom ñu signé ñu wote ko euh, mu nekk loi boo xam ne aussi loi bu am solo la ci Afrique tey jii Afrique foo dem dañuy dañuy dañuy félicité di ñu wax ni que yéen nan ngeen def ba am loi bu mel nii. Mhm. wante xam nga voté loi baax na wante application souvent moom mooy nekk problème jafe-jafe bi waaw foofu nag. ñun tey jii la ñu am quelques difficultés yoo xam ne duma ko woy sa difficulté parce que dañoo fekk ay habitudes yoo xam ne dañoo dañoo ancré dañoo mhm. dañoo taxaw ba noppi mhm. euh, ba noppi mu nekk mu am beneen affaire bu ñu nekk cigarette moom ñëpp xam ne ni que euh, drogue la su fekkoon ni ni ñu xamee cigarette tey noonu lañ ko xamee woon il y a trente ans ou quarante ans. Mhm. buñ koy classé dañ koy classé comme drogue yi nga xam ne moo teg moom la ñuy xeex yëpp tey si ci mhm. parce que aussi da ngay gis nit mu dugg ci cigarette bugg xëy suba bàyyi ko. mu nekk lu jafe-jafe ci moom. day nekk lu jafe loolu. Mhm. Euh, te tamit dinañ ci ñëw parce que loolu aussi sevrage bi des fois ñu bëri moom mooy leen di. Euh, tax chaque fois ñuy récidiver parce que dañuy dem ba bàyyi sax duggaat ci loolu je pense que dinañ ci ñëw ci kanam mais li nga xam ne moom mooy loi bi voté ngeen ko atum 2014 ñu bëri amoon ci yaakaar ne ah tour de daanaka mun nañ nekkoon daal dina fa wàññi daal li muy faagaagal askan wi mais ni ñu gis na de plus en plus daal comme ni nga wax problème application daf ci posé parce que di ngay romb sax nit mu ñëw ba sa suufu bakkan di fa toox te pourtant ci loi bi dañ wax ni à deux cent je pense mètres de euh, kenn kenn waxul daal di di tux daal ci kanam mun ni wala di faagaagal nit ki daal mhm. mm. waaw loolu dëgg la euh, loi bi bi ñu ko voté 14 mars 2014 euh, vraiment dafa dafa yëkkati espoir yu bëree bëri ci réew mi parce que ñëpp remarqué na ni que tey jii ñiy gën a tux mooy xale yi mm. mu nekk aussi loi boo xam ni nit ñi dañ ko war a gën a comprendre parce que nit ñi aussi bu fekkee da nga voté loi te demoo ci ñoom nga expliqué leen du ñu mën a xam lan moo nekk ci bi. Mm. tey jii li woon mooy cigarette moom di woon mooy tey jii dafa nekk lu compliqué boo xam ne pour xeex ko dafa xaw jafe. dafa xaw a jafe premièrement parce que euh, ñi koy tox dañuy dem ba dañuy dépendant dañuy dem ba nga xam ne dañuy bugg a bàyyi duñu ñu mën bàyyi parce que tout simplement ñiy defar cigarette aussi dañ ciy def ay produits yoo xam ni boo koy compter boo koy dee tox da ngay dem ba da nga bugg a bàyyi te doo mën bàyyi. Mm-hmm. loi bi dafa interdire ñu tux ci yenn place yi nga xam ne nit ñi dañ fay daje. Euh, comme les hôtels bars restaurants et yooyu kenn waratu fa am droit di fa tux ci biir ci biir euh, place yooyu. Mm. wala su fekkee ni borom place yooyu dañoo bugg euh, ay seen ay clients di tux foofu dañ leen war a defaral li ñuy wooye un fumoir fumoir nag kenn neewul la nga jël ñaari planche rek. taf ko nii ni fii kenn fii mën nañ fi tox fii kenn mën nañ fi tox no dafa am ay conditions yoo xam ni moom la war a defaree fumoir te tey jii man li ma gis ci loi bi tel que ni ñu ko defaree gisuma fii benn entreprise wala benn structure boo xam ni da nga jël autant de moyens di ko def ci fumoir pour que euh, ngay pour que sa ay di ko mën a utiliser mhm. ba noppi ñun amoon nañu au départ euh, un peu de difficulté avec les hôteliers euh, parce que hôteliers yi xam ngeen ni souvent ñoom ñiy ci ñoom mooy les touristes étrangers. Mhm. Euh, ñoom defoon nañu sax intervention au niveau du ministère de la santé mais euh, malheureusement pour eux ministère de la santé madame Marie Awa Coll euh, Awa Marie Coll Seck moom euh, kiiwul woon d'accord woon ci loolu parce que dafa considérer ni que te loolu sax moo loi boo koy defar defaroo ko pour Jean wala pour Paul da koy defar pour tous les sénégalais. Mm -hmm. et que ñun loi boobu dañ ko def pour protéger d'abord les sénégalais. waaw mhm. ba noppi gis nañ ñu comme ni ko waxee. tey jii euh, Sénégal ni ñu bëri foo dem ñu ngi gis nit ñi di tux mm-hmm. te loolu aussi problème la loolu nag mooy application bi mm. application bi nag euh, dafa nekk loo xam ni euh, jafe na jafewul parce que ñun li ñu mën a def mooy ñu ñu jouer alerte ak veille waaw mu ñu loolu mooy suñu rôle en tant que société civile. mais li ci des askan bi ñoo ko war dox parce que tey di nga gis parce que hôtel yeeg bar yeeg restaurant yi c'est vrai baax na ñu sàmm ñi nga xam ne ñoo fa nekk mais mën nañ ne ñuy dem ñiy fréquenter li yooyu ci askan wi bay xool lu néew la mais da ngay gis ay arrêt bus yi par exemple da ngay taxaw am ku ñëw taxaw di toog sa wet te sañoo ko wax dara. waaw loolu lépp aussi li ma la wax rek problème de communication la boo xam ni dañ ko war a gën a def. en direction des populations c' est vrai que ñun aussi ñu ngi def vraiment des efforts état bi mi ngi def ay ay efforts aujourd'hui au niveau du Sénégal am nañ fi li ñuy wooye un programme national boo xam ni euh, état bi moo ko mettre en place ñoo ñëpp tey jii ñun ñoo lëkkaloo pour di que ñu mën a euh, am une bonne application de la loi mais xam nga li ma la wax rek xam nga euh, fekk ay habitudes yoo xam ne dañoo dañoo taxaw ancré ba noppi ci nit ñi pour nga jëlee leen ci def dafay xaw a jafe mm-hmm. te il faut aussi considérer que fii nit ñi ñu bëri xëy na jànguñu aussi. Hmm. loolu aussi dafa am solo ci mbir mi euh, parce que gis ngeen déjà euh, paquet cigarette yi bu njëkk dañ ci doon def rek abus dangereux pour votre santé alors que sax du abus bi moo dangereux mooy utilisation. bi <laughs> ndax boo xasee ba commencé ko dootoo xamati fan la la jëmee. <laughs> exactement donc donc loolu la ba tey jii euh, ci biir loi bi am na ay dispositions yoo xam ni dafa permettre ñu jël aujourd'hui hmm. au lieu ñuy bind abus dangereux dañuy jël image. Hmm. ñu def ko ci parce que yow boo gisee image bi nga xam ni que kuy kiy cigarette bi bu yàggee nii lay mel. Mm-hmm. waaw loolu aussi je crois que na trop ci kii tey c' est vrai que nit ñaa continuer tox mais on peut considérer que wàññeeku na bu baax. Mm. waaw euh, ci image yooyu noonu sax naataal yooyu amoon na solo parce que nit tey bu ñëwee gis. ah kii de am na nu mu xaw a melokaanoo mm. te cigarette moo ko yóbbee bu naree toog sax dina am ragal bu ne ci moom mm. mais dañu gis ne day dem ba ci biir ñi ñi dem ba tàmm ko mm-hmm. image boobu ñu koy gis ak jour ñu dem ba tàmm ko ba dootu leen amati effet ci ñoom waaw xam nga image bi nag chaque fois dañ koy changer am na mm-hmm. période boo xam ne bu fa tolloo dañ koy changer def beneen image mais parce que mais on on considère que ci suñu société yu mel nii li naan benn image euh, wecc na mille mots mm-hmm. image bi dafa am importance. Mhm. parce que même ku jàngul tey boo gisee image bi nga xam ne moo nekk ci paquet cigarette bi mhm. da nga xam ni lii baaxul. Mhm. c'est très important. léegi nag ñun suñu difficulté aussi nekkul foofu rek dafa nekk ci ci xale yi parce que ñëpp xam na ni que industrie du tabac moom buy recruter. ci xale yi lay dem. ñun dañuy def ay ay ay ay campagne de communication au niveau des établissements scolaires mais lu ñu li ñu remarqué mooy bu ñu demee ci école yi. à partir des classes de sixième déjà boo laajtee yéen yéen dañuy boole ñaari classe ñu laaj leen ñi yéen kan moo ci mas a laal cigarette wala kan moo ci mas a laal lu mel ne cigarette presque moitié classe yëpp dañuy yëkkati seen loxo ki ay xale yoo xam ni ñu ngi sixième mais je dis que ça c'est une catastrophe parce que xale yi ñooy màgg nekk ay fumeur loolu nag li ko indi mooy dañuy gis seen ay parents ñuy tox par par exemple wala ñu gis ñi leen di jàngal di tux. wala influence bi ci film yeeg yooyu. Mm. ba nga xam ni xale bi dañ ko war a préserver ba nga xam ni yooyu du ko kii parce que un parent boo xam ne dafay yónni doomam cigarette wala muy gis muy tux ci kër gi. parce que un enfant su gisee papam di tux dafa naan li muy li papam def baax na. Mm. un enfant c'est comme ça qu'il xale lu mu gis papaam di def rek pour moom loolu baax na. Mm. alors que loolu baaxul. ce qui fait que aujourd'hui enseignants yi aussi ñu am vraiment attitude boobu di nekk ci euh, école yi di di tux parce que un enseignant aussi modèle la bu ko xa bu ko mu ngi gisee muy tux mais dafa naan lii sama maître def def baax na. lu baax la. wala seen mag yi wala même ñi ni àndal di leen entraîner ci yu mel noonu. fréquentation yu bon yeeg yooyu. exactement ce qui fait que loolu. vraiment dafa nekk un ensemble boo xam ni soo ko boolee soo ko xeexee xëy na yàlla mën na la may ay résultats. Mhm. Euh, euh, ci la nga xam ne moom mooy euh, loi bi décret bi boobu ba léegi quand même yàgg na décret d'application yi ngeen di laaj lu tax ba léegi parce que gis nañu ay jamono tappage amoon na ci médiatique ba vraiment ñu taxawal mbir mi ba loi am ngeen continuer di xeex di xeex mais te ñu gis ne am na benn seral buñ ko mënee tuddee noonu bu ci am décret itamit yéex na. waaw c'est-à-dire décret bi ñun euh, bërki démb def nañ conférence de presse mhm. pour wax ci mais il faut aussi considérer et, vraiment comprendre que Sénégal euh, il faut le dire aujourd'hui euh, euh, gouvernement du Sénégal euh, on peut dire que on peut am na am na volonté politique parce que mhm. volonté politique moo nu permettre tey ji ñu am loi mhm. alors volonté politique nag boo ko am da nga koy dem da nga ci dem ba mu sës waaw nga nekk ci logique boo xam ni danga koy da koy comprendre di ko di ko dérouler mais ñun dañoo dañoo remarqué ni que depuis un an dañoo dugal benn décret d'application ci commercialisation en tout cas réglementation de la vente du tabac au Sénégal. Mm-hmm. ni ñu koy jaayee dañ ko war a xool ni ñu ko fan nañ koy def ak fan lañ koy jaarale. ñu remarqué ni que euh, projet euh, projet de décret boobu dafa war a génne cigarette ci boutique yi. su ko su ko gouvernement bi signé su ko président signé kenn dootul mën a jaay cigarette ci boutique dafay nekk loo xam ni ku ko bëgg a jaay comme ni jaay ñiy jaay sàngara wala leneen dañuy dem wuti autorisation mm-hmm. nga am place boo xam ni loolu rek nga fay jaay mais loolu nag dafa nekk décret boo xam dafa am importance trop trop parce que en Afrique aujourd'hui mm-hmm. mën nañu considérer que ñun loolu bu ñu ko defee ça va être une première en Afrique mm-hmm. parce que génne euh, cigarette ci boutique yi mais ça c'est très important mais il faut comprendre que aussi il faut nga comprendre aussi que dafa am loo xam ne dafay tourner mooy li may wooyee l'économie qui tourne autour de la vente du tabac mooy borom tablette yi borom table yi borom boutique yi borom pousse-pousse yi ñoo ñëpp dañu jaay cigarette mm-hmm. tey jii boo xëyee suba nii euh, loolu dafa da koy arrêter mm-hmm. ku bëgg jaay cigarette da ngay dem wuti place dem ci gouverneur wala nga dem dans la région nga dem ñenn ñi du leen ko jaral coono boobu yëpp mais du leen ko jaral hmm. du leen ko jaral ce qui fait que loolu dafay gën a jafeel sax tox bi hmm. parce que buñ la ne yow kii jaay cigarette mi ngi à cinq cent mètres wala à un kilomètre foofu la nga ko mën jënde hmm. boo defee le rapport xëy na da nga ni naa bàyyi eh su ma nawee dox lu toll nii di jënd cigarette naa ko bàyyi ba noppi xale yi dootu accusé wuñ kenn ñun dañoo poser ay questions dañu ni suñu décret fan la nekk. waaw depuis un an dugal nañ ko ci circuit bi ñun ni ñu mu ngi au niveau du secrétaire général du gouvernement. Mhm. on considère que c' est au niveau du secrétaire général du gouvernement que ñun lañuy def ay réclamations la ñuy réclamer suñu décret. voilà ñun su loolu rek la du leneen. Mhm. Euh, waxuñu ko dañ ko bloqué wala dafa am ñuy intervenir on peut même considérer que sa xëy na. comme ci yeneen réew yi mais industrie tabac euh, euh, yu mel nii bu amee def ciy dugg. parce que ñoom dañu ay ñu am doole lañu. mais dañoo am doole mais ñoom xam na ne que Sénégal ñun fekk na fi ay nit ñoo xam ni dañoo déterminé ci seen combat bi. Mhm. waaw parce que ñoom aussi. il faut comprendre que bon nous les comprenons ñoom ñoom ils ne font que défendre ñoom li leen li leen intéressé du wér yaram nit ñi wala leneen ñoom leen intéressé mooy li ñuy jaay exactement ñoom lool moo leen intéressé ñun nag li ñu intéressé mooy protégé suñu ay population protéger suñu ay doom protéger suñu ay famille loolu mooy moom mooy suñu combat tey mhm. euh, voilà ba tey mbokk yi yéen a ngi déglu seen émission SOS santé ci Rewmi FM 97.5 tey ñu am mbégte di dalal ki nga xam ne moom mooy Amadou Moustapha njiital euh, kon euh, kuréel bi nga xam ne moom mooy listab ñu gis ne ci publicité yi am nga loo xamante ne def ngeen ko ci ci ay jéego ndax loi bi dafa tere lépp loo xam ne ay publicité la mais ñu gis ne leen da ngay seetaan film jékki-jékki gis ci yooyu te film yooyu sax day nekk ay production nationale waaw loolu aussi beneen beneen problème la boo xam ne am nañ ko tey jii avec euh, les médias en général parce que article neuf dafa interdire tout ce qui est publicité ou qui ressemble de la publicité pour le tabac ba noppi ñun ñu remarqué ni que dafa am il faut le dire certains médias au niveau du Sénégal yoo xam ni ils sont en train la loi c'est-à-dire ñi ngi ñu ngi ñu ngi jalgati loolu ñun dox nañ ci ay jéego yu bëri euh, am na fi ay ay ay ay ay ay maison de presse yoo xam ni euh, def nañ fi publicité ñu ñu mettre leen en demeure Euh, porte nañu plant contre benn groupe de presse bu nekk Sénégal déjà procureur euh, diligenté na dossier bi ba yóbbu ko au niveau de la brigade de recherche de la Médina Colobane bi nekk Colobane mm-hmm. ñu ñu entendre ñu ba on en train de trouver des mais dañoo gis ne que dafa am ay récidives am na aussi beneen télévision boo xam ne bu mu ko tudd. Mm-hmm. boo xam ne moom aussi tey jii mi ngi mi ngi dérouler benn série boo xam ni mi ngi ciy def ay publicité te loolu c' est le même producteur bi nga xam ne moom mooy enfreindre la loi au niveau ci beneen télévision moo nekk fële aussi di def la même chose. Mm-hmm. mais nous considérons que la responsabilité première c'est-à-dire ki gën am responsabilité ci affaire bi mooy celui qui diffuse c' le diffuseur qui est responsable c' par le canal du diffuseur que dañuy jël ay production di ko dugal foofu nit ñi di ko gis. Mm-hmm. alors j'ai dit plusieurs fois que ñun suñu intention ce n'est pas en conflit avec les parce que nous considérons que les médias sont nos partenaires suñu buggee jàllalee ay message wala suñu buggee wax ñun médias yi ñoo ñu jàllal suñu ay message ñoom dañu war a am un partenariat actif et vraiment très intelligent ak ñun ba nga xam ne ñoom war ñu dugg ci ci ci yu mel noonu yoon ñu fexe ba Sénégal am loi ñëpp di ñu ko nawee ñoom ñu nekk fii di enfreindre cette loi là alors j'ai Euh, masla nag dafa am fu mu yem. Mhm. waaw su fekkee ni ñoom ils continuent à faire ce qu'ils font aussi aujourd'hui ñun nous serons obligés bu bu ñu bu ñu bu ñu entamer encore des actions judiciaires dañuy dem jusqu'au bout du ñu arrêté. Mhm. waaw mais on considère il faut que ñoom ñu comprendre ni que ñun bëgguñu entrer en conflit ak ñoom. mais ñun aussi on est mandaté par des associations yoo xam ne ñoom ñoo ñu demandé ñu veiller à ça mënuñu continuer di gis ay médias ay télévision ay rajo wala ay journaux di de la loi loolu ñun ku ko defati Sénégal ñun yoon danañ dana dem dana ànd ak yow ba ci yoon yoon def lu mu war a def. Mhm. voilà ñu gis ne loolu lu am solo parce que quand euh, dañu gis ne xale yi ak yooyu euh, masse bi dañuy seetaan genre film yooyu ak genre production yooyu te ñu ko gisee loolu mun na am lu bari loo xam ne dina ko yàq seen liggéey euh, ci conférence de presse bi ngeen doon amal bu bu yàggul ça fait trois jours je pense mhm. wax ngeen ci daal ab euh, xaatim boo xam ne Afrique soow Afrique soow jant dañ ko xaatim ci wàllu tabac bi. Mm. est-ce que mën nga ci dellu si parce que moom ngeen doon siiwal keroog ci seen point de presse bi. waaw en fait conf euh, conférence de presse bi noonu def. Mm. Euh, euh, li le point focal mooy c'était le décret d'application. li nga mm. xam ne moo war a réglementer di jaay cigarette ci Sénégal fu ñu ko war a jaayee ak fu ñu ko warul jaayee mais am na aussi ay études yu montré ni que aujourd'hui en Afrique. Euh, dafa am loo xam ni li ñuy wooyee que euh, exposition boo xam ni euh, pays africain yi dañ dañ ci nekk mooy que on considère que les soixante dix pour cent des fumeurs tey jii ñi ngi suñu côté ñun en Afrique mm-hmm. et on considère que loolu suñ ci jugul fi léegi dix ans danañu ñu àgg ci niveau boo xam ni pour ñu jël en charge la lutte contre da tabac dana nekk lu jafe jafe mm-hmm. jafe parce que tey jii mën nañu wax ni que cigarette rek mooy produit boo xam ni euh, dana rey plus de huit millions de personne chaque année loolu soo boolee di accident yi di rey nga boolee ñi nga xam dañuy xaru ngay nga boolee ay li guerre yi di rey ci année bi yëpp nga boole leen ñoom ñëpp cigarette moom dong li muy rey moo ko ëpp ay paludisme ak ay sida nga boolee leen ci euh, tamit c'est la même chose li cigarette di rey par an moo ëpp lu boole boole ñoo ñëpp li ñuy rey loolu moo ko ëpp ce qui fait que dafa nekk un problème un très important boo xam ne nit ñi dañ ko dañ ko war a comprendre euh, parce que Afrique dafa nekk euh, ci position boo xam ne ñu amuñu doole tey jii gis nañ ñëpp dans les tous les pays africains mm. coono yi ci nekk ci ay guerre ay maladies ak yu mel noonu su fekkee ne nag dañ ci bëgg a boole ay feebar yoo xam ne ñun mënuñu am moyen di ko jël ko en charge parce que parmi euh, maladies yi nga xam ni cigarette daf koy joxe mën nañ ci wax lu mel ne cancer wala yu mel noonu. Mhm. te cancer am na ay ravages yu muy def yu bëri sax. mais juste mhm. surtout surtout dans nos pays nga xam ne ñun amuñu moyen. Mhm. tey ji loolu ñaan ñaanuñu yàlla mais ku mu dal parce que da doon tox sa famille yëpp daañu def li ñu mën daañu miraas seen bopp def ci. te xëy na sax da mën nga wér wala mën nga bañ a wér. ce qui fait que population yi ñëw war a jël en charge cette question là xeex bi ñu ànd ci ak ñun parce que buñ ko defee. ñoom dañuy protéger aussi seen famille parce que bu ñu ko deful aussi bu ëllëgee seen doom yi dañuy nekk ay toxkat te te tox moom mooy buntu leneen. Mm-hmm. ci tox ngay jaar pour dem tox yamba wala nga tox drogue wala yu noonu. ce qui fait que c'est un boo xam ne ñëpp ci war jàpp. et que ñu ngi appeler donc tout le monde à venir nous rejoindre dans dans ce combat là. Mhm. voilà li nga xam ne moom mooy xeex bi euh, décret d'application yi dina tax yéen ngeen mën a euh, gën a def daal seen seen liggéey mais tey jii même sans décret d'application bi est-ce que tey nit koo xam ne am na ku ñëw toog sa wet tux wala ñëw fekk la ci lieu ñu fekk la tux sa wet te loolu mën na la indi jafe-jafe mhm. est que am nga ay armes ay moyens pour mën a xeex loolu wala dem daal am foo ko jooyee. waaw xam nga dafa am li nuy wooyee le tabagisme passif mooy yow doo tox man may tox di la xeeb te ñaari nit bu ñu jàkkaarloo kenn ki di tox kenn ki toxul li gën a bon ci cigarette bi wala ci li ñuy tox ki ki toxul nga jàkkaarloo moom moo koy jël. Mm. loolu il faut que nit ñi comprendre ko parce que nit ki bu téye cigarette am lii lii génn ci cigarette bi nii ci kaw. Mm-hmm. mais ki mu jàkkaarloo moo koy jël. Mm. ba noppi su xëccee ba noppi dugal bu génnee bu sànnee. ki mu jàkkaarloo moom la koy jox. Mhm. ce qui fait que aujourd'hui nit ñi dañu war a comprendre ni que am na lu ñuy woowee le tabagisme passif te tabagisme passif dafay dafay rey dafay rey euh, ci addi euh, dans le monde mhm. neuf cent mille personnes daañu dee ci ñoo xam toxuñu. Mhm. da leen di toxloo mooy ñi nga xam ne seen jëkkër dafay tox seen kër ay kër. wala seen jabar di tox. ñu toog ay années mu leen di enfumer. waaw parce que ñooñu dañuy toog ba benn jamono boo xam ni dañuy dañuy développer ay feebar yoo xam ni. kii tux moo ko yor te yow tuxuloo sa jëkkër mooy tux di la xeex wala muy tux ci biir néeg bi wala muy tux ci biir kër gi da yow dana dem ba sa doom mën na am feebar yooyu mm. sa jabar mën na am feebar yooyu ce qui fait que li ñuy woowee tabagisme passif mm. aussi euh, les responsables des familles la autant les maris que les que les épouses dañu ko war a comprendre pour que ñëw wala ñu exposer aussi seen ay doom dans les lieux de travail aujourd'hui combat bi mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy liggéey ci place yooyu comme hôtel yi wala bar wala restaurant yi mais ñoom seen ay employeur dañ leen a war a protéger mm-hmm. parce que yow yow da ngay da ngay dem di daane sa doole ci bar wala restaurant yow tux yow tuxuloo parce que clients yi on on leur permet ñuy tox ñoom dañuy dem ba di wala la <laughs> nga am feebar boo xam ni tuxkat moo ko yor mais loolu aussi beneen beneen beneen dimension la boo xam ni euh, je crois que les travailleurs aussi bien les travailleurs que les employeurs dañ ko war a jël en charge mm-hmm. voilà voilà loolu lu am lu am solo la parce que quand même euh, tey jii nit ñi dañoo umpale loolu que ne ki nga xam ne moom euh, du tox ki ñëw tox ci wetam ki toxul sax moom moo koy ëpp jafe-jafe après te loolu communication bu am solo lañ ci lañ ci war a def pour que nit ñi gën ci gën ci bàyyi xel te dañoo gis ne aussi des fois yenn toxkat yi nañ ma baal dañuy am yenn attitude yoo xam ne maanaam Euh, dañ ci entre guillemets boole sax as ñàkk kersa dañu ñëw sa ba sa wet tux fa mel ni ku lay ko këli daal wala yu demee noonu. waaw xam nga loolu aussi yëpp ña ñàkk xam la. ba ah. noppi manque d'éducation bi aussi bon loolu aussi am na ci euh, parce que normalement nit ku normal warul warul mën a toog sax fu nit ñi di toog tuxuñu moom mu fay tux. Mhm. gis nañ fi ñoo xam ni parce que euh, àddina moom ñaari moo fi nekk ou bien yow nit ki nga ragal ko wala nga rus ko. Mhm. waaw su fekkee yow nit ki ko. mën nga def ci kanamam lu nekk. Mhm. su fekkee ni euh, euh, da nga koo da ko ragal am na loo xam ne doo ko def ci mhm. kanamam. ba noppi loi bi dafa am aspect boo xam ni buñ ko appliqué parce que tey jii ñaari ñaari yëf moo mën a tax ñu am ay résultats ci affaire u xeex toppoon mooy du sa affaire toppoon rek ñaar yi mooy nit ki boo làmbee boo laalee poosam. Mhm. wala nga laal liberté am rek da nga am résultat. te tey jii loi bi am na ay dispositions yoo xam ni ay amende yoo xam ni ay amende yu diis yoo xam ni qui va aller qui peut aller jusqu'à cinq cent millions pour les grandes entreprises yi nga xam ne dañuy def ces ces genre de de euh, euh, ak ñi nga xam ni dañ leen di fekk ñu ñu toog ci restaurant wala ci bar di toog parce que dañu ni que tey jii restaurant bi waratuñ fa fekk sax cendrier boo xam ni dafay permettre nit ki mu ñëw di toog alors loolu ku ñu fekk tey jii ci benn bar hôtel wala restaurant nga fay toog immédiatement am nañu ay ay amande de cinq mille francs yoo xam ne da nga ko war a fay immédiatement ba noppi ki moom place bi permettre la nga fay toog aussi am na loo xam ne yoon dafay dal ci kaw. dama dellusiwaat ci loolu parce que restaurant yi baar mhm. yi. hôtel dafa mel ni mbir mi foofu kese la yem mais yeneen endroit yi nag. yu mel nan par exemple. tey comme arrêt de bus yeeg yu demee noonu nga xam ne ñi ñuy tajaloo di xaar bus. wala par exemple tey jii nga dem di jënd café ci benn benn endroit mhm. nit ki ñëw. yore cigarette di ko tux di la euh, xët saxaar seek yooyu. waaw xam nga loolu. mooy li ma la wax léegi loolu question de d'éducation la c'est-à-dire loi bi. Euh, c'est-à-dire euh, am na foo xam ni àggu fa. c'est-à-dire mooy que mbedd mi. mbedd mi ku mu neex mën nga toog ci mbedd mi. Mhm. loi bi li mu dul permettre mooy les lieux fermés nga xam ni dañ fay daje. Mm-hmm. wala hôtel yi mooy hôtel bar ak ak yi mm-hmm. loolu la la loi permettrul nit di fa tux ci biir mm-hmm. mais mbedd mi nag bon kenn mënu koo tele nit ñi aussi bon ñun fekkoon ci ñun rek la dépendre loi bi danaan bu kenn doxati ci fenn mbedd meeg feneen lañ ci yemale mais comme dafa permettre le le citoyen aussi mu am liberté bu génnee ci mbedd mi tux kooku bon kooku ñun mën ñu ci dara d'accord loi daal moom moo tënk loolu moo ko tënk mm. waaw mais fi nit ñi di toog di fa daje moom muy hôtel bar restaurant yi wala même dans les transports en commun la kenn amul droit toog ci biir bi wala même nga nekk am na loo xam sa xel moo ko nanguwul yow nga am sa oto am sa famille dugal leen ci oto bi ba noppi di toog ci biir bi loolu loolu nit ki moo war a am xel même su ko ko yoon terewul sax moom loolu war ko def. tey jii man loolu ça m'est arrivé ma dugg benn taxi waa chauffeur bi di tuux ma ne ko ah. sa cigarette dafa nga fay ko parce que man supporté wu ma mais après daf ko fay. mais am na ñoo xamante ne <laughs> duñ ko nangu. mais parce que parce que ñooñu mooy li ma la wax rek mooy nit ñoo xam ne aussi xamuñu dara. waaw nit ki nag bu xamul dara bon a xamal bu may ñoo xam ni euh, pour leur faire comprendre certaines choses c' un peu difficile. Mhm. voilà. voilà li nga xam ne moom moo jëm ci njëg bi aussi amoon na ay. Euh, maanaam lu ngeen tënkoon ci lo lu tënku ci loi bi plutôt jëm ci njëg bi parce que bu ñu ko xawee yokku dina tax euh, li nga xam ne moom mooy peut-être ñi koy jënd dootuñu ci mën a jot te loolu dina yombal xeex bi tey ji euh, fan leen toll ci mbir moom xam nga loi bi nga xam ni dafay jël lépp en charge à cent pour cent amul fenn. Mm. ñun suñu intention mooy que aujourd'hui nu reconnaissons que am na quelques faiblesses. Mm-hmm. ci loi bi mo première faiblesse tey ji mooy la vente au détail. Mm-hmm. parce su fekkee da nga permettre euh, euh, nit mu bu amee cinquante franc wala vingt cinq franc te mën a jënd benn cigarette loolu dafay yombal affaire yi. Mm. mais tey jii ñun li ñu bëgg mooy kenn dootul jaay cigarette au détail loolu nag beneen combat boo xam ne aussi il faut ñu mëne ko au niveau de l' assemblée nationale et au niveau de l' état. Mm. Euh, parce que tant ñu ngi permettre xale yi ñuy mën a am cinquante franc wala vingt cinq franc dem di jënd cigarette loolu dafay nekk loo xam ne dafay nekk faiblesse ci loi bi alors paquet bi aussi dañ ko war yokk. parce que le meilleur moyen nga pour nga baisser wa wàññi consommation bi mooy nga yokk njëg gi tey jii su fekkoon ni yokk nañu paquet cigarette di ko jaayee cinq mille francs te duñ ko jaay au yaakaar naa ni yu bëri daañu bàyyi tey cigarette mm. foofu nag aussi beneen combat boo xam ni incha allah daañ ko daañ ko jéem a daañ ko mëne ñu ngi koy commencé mëne te aussi dañuy yaakaar ni que réew mi ñëpp daañ ñu ci jàppale mm. pour ñu mën ci am ay résultats li nga xam ne moom moo jëm ci euh, décret d'application yi def ngeen point de presse bi est-ce que fii fii maanaam daal ci diggante bi am ngeen ay euh, nit yu ngeen dégg ay bonne volonté wala daal ay sax médiation yooyu bu ñu ko mënee tuddee noonu pour que mbir mi mun a am déggoo am nga ay éco peut-être yu ngeen ci dégg wala yu demee noonu. waaw c'est-à-dire euh, xam nga euh, conférence de presse bi ñu ko defee léegi ça doit faire quatre ou cinq jours. Mm-hmm. mais ce qu'on a déjà remarqué mooy que euh, que l'information a été bien relayée au niveau même de la presse internationale. Sénégal médias yëpp presque kii nañ ko génne nañ ko wax nañ ci médias internationaux aussi ñoom vraiment relayé nañu information bi. Mm-hmm. mais nous considérons que en principe état bi. dana jël question bi en charge ñun yaakaar nañ ko parce que parce que ñoom euh, certainement war nañu xam ni que ñun euh, on les incrimine pas mais on considère que nous avons un décret qui est dans le circuit depuis un an <laughs> et que ils doivent nous aider à parce que loolu ñun daal bu ko defee ñun daan leen ci gërëm di leen sant. Mhm. waaw voilà mu nekk lu am solo li nga xam ne moom mooy wàllub euh, cigarette bi am na ay jamono ngeen doon kaas wàllu trafic. trafic boo xam ne daf ci am cigarette buy jógee daal fu kenn xamul te circuit bi parfois du xaw a leer daal tey ji est-ce que am na ay résultats probants yoo xam ne am na ci ci mbir mi. xam nga Sénégal dafa nekk ci position boo xam ni dafa am ay état frontalier yoo xam ni ñoom la ñu nekkal euh, comme du ma tudd dëkk mais ñëpp xam nañu fan la fan lay wax euh, foofu souvent fa la li ñuy wooyee trafic illicite des produits du tabac. Mm. foofu lay jógee di di ci réew mi. Mm-hmm. mais dafa am aussi beneen dimension boo xam ni ci trafic euh, ci commerce illicite des produit du tabac euh, dépendre sa xëy na ci petit commerce bi sa dépend directement de l'industrie du tabac parce que tey jii su fekkee ni da nga bugg jënd benn paquet cigarette fan ngay dem ci boutique nga jënd ko mais tey ji su fekkee ni da nga bëgg jënd conteneur cigarette fooy dem ci ki koy jaay. Mm-hmm. donc trafic bi li ko gën a yokk ñu koy gën a def. mooy ñi nga xam ñoom ñoo koy defar parce que loolu aussi dafa nekk beneen problème boo xam ni dafay dafay gàllankoor suñu ay wér-gu-yaram au niveau de nos pays là. Mm-hmm. parce que su fekkee ni euh, euh, ñoom dañuy produire produit euh, tawa boo xam ni état bi du ci jël ay taxes mais après ñu jël ko encore dugalaat di ci réew mi mais loolu dafay dafay dafay wàññi li nga xam ni état bi ñoom dañ ko waroon fay ba noppi dañuy gën a yokk consommation bi au niveau de nos pays. Mm-hmm. tey jii dans le monde ñëpp. remarqué na ñëpp d' accord nañ ni que euh, le principal trafiquant bi nga xam ne moom mooy def commerce illicite mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay cigarette ñoom ñoo koy defar waaw loolu aussi mu nekk beneen dimension boo xam ne état bi war na ko gën a jël en charge surtout que état bi euh, euh, signé na la convention sur le protocole des du commerce illicite des produits du tabac loolu yaakaar nañ ni que buñ ko buñ ci taxawee aussi dana dana jox ay résultats Sénégal ak yeneen réew yi bon tey jii pour affaire taxi yi déjà aussi euh, dañoo remarqué danoo xam ni xam nañ ni que tey jii euh, industrie du tabac li muy versé ci ci ay taxes à l'État du Sénégal c'est vingt quatre milliards mm. mais vingt quatre milliards yi nga xam ñoom ñoo ñuy jox État du Sénégal mais État du Sénégal ñoom war nañu réfléchir xam ni que vingt quatre milliards bu yi leen industrie du di jox ñoom n'importe quel collecteur de de taxe waroon na leen ko mën a jox mais ñoom li nuy jël en charge pour feebar pour pour faj feebar yi nga xam ni. feebar yu chronique yu metti yi nga xam ni si lié au tabac mais boo defee le rapport tu tu es peut-être à cent milliards wala à deux cent milliards yoo xam ne état bi moo koy jël en charge donc quand on fait le rapport entre ce que l'état du Sénégal gagne en taxe ak li muy li nga xam ne moom lay dépenser pour soigner des malades mais quand tu fais le rapport donc état bi aussi loolu war na ci gën a réfléchir. mu yokk taxes yi jusqu'à même cent pour cent hmm. pour que moom mu mën ci am loo xam ni xëy na suuf nit ñi feebare danañ ci mën a jàppale euh, ba noppi aussi euh, ñu ñu ñu ñu réfléchir à des mécanismes yoo xam ni aussi euh, dañuy am li nga xam ni moom la ñuy wooyee fi di financement innovant mooy le financement domestique pour en tout cas la hmm. promotion de la santé ñu jël ñu ni taxes yi nii la toll mais dañ un certain pourcentage dañ koy jël pour la promotion de la santé et des maladies non transmissibles yi nga xam ni ñun xam nañu yan la euh, ba noppi nag dans la clé de répartition aussi ñu ñu jël euh, euh, une une partie dédiée ko à la lutte anti-tabac comme il des pays qui sont en train de le faire mm-hmm. je crois que loolu bu ñu ko defee daañu gën a trouver des solutions parce que il faut le mm-hmm. dire Euh, tey jii ñun li ñu remarqué mooy que euh, euh, c'est vrai que on travaille avec des partenaires étrangers ñoom ñoo ñuy jàppale ci xeex bi mais ñun on considère que war nañu mën a am en interne ici au Sénégal et dans. suñu kopparu bopp yoo xam ne waaw. suñu ay kopparu bopp mm. ñoo xam ne ñu ñoo koy ñun ñoo koy générer ci suñu ay moyens yi nga xam ne mm. interne la bu ëllëgee bu bu partenaire financier bi demee. aussi duñu wàññi dara. du andi benn jafe-jafe daañu mën a continuer di euh, ñu ñëw ci ñi nga xam ne danoo bëgg a bàyyi euh, cigarette loolu moom bokk defe naa ne bokk na ci jafe-jafe mhm. parce que cigarette moom li ci li la ciy dugal génneewu la ci. Euh, comme ni ñuy faral di ko waxee. te ñu bëri dinañ dem ba bàyyi ba un certain mois un mois deux mois trois mois récidivé duggaat ci te mu nekk benn cirque. cycle infernal boo xam ne nit ki du ci jóge benn cercle cercle vicieux euh, tey li nga xam ne moom mooy wàll woowu yan jéego ak yan piste de solution euh, ngeen di proposer euh, genre nit yooyu bëgg a bàyyi. loolu li li ma ciy wax sànq mooy que xam nga cigarette moom li ma la moom mooy drogue la ñu bëgg a bàyyi da ngay gis ko bàyyi tey un an après mu reprendre tout simplement parce que c'est une drogue dangay dem ba tu deviens dépendant da ngay bëgg a bàyyi du mën bàyyi. Euh, loolu am na ay jéego yoo xam ne ñu ngi koy def ci Sénégal tey am na fii au niveau de certains hôpitaux ay spécialistes yoo xam ni euh, bon ñu ngi ñu ngi liggéey ci sevrage bi mais sevrage aussi moyen la laaj te loolu euh, li ko mën a gën a taxawal mooy ay taxes yoo xam ne dañ koy yokk jusqu'à cent pour cent ay moyens yoo xam ne dañ koy dijee pour faire pour tabax fi ay centre de sevrage yoo xam ni buñ ko taxawalee parce que c' est des centres qui doivent coûter très cher. Mmh. c' est beaucoup d' te loolu je crois que li ko mën a maye rek mooy ñu mën a am ay moyens yoo xam ne dañ koy tirer des tax yoo xam ne état bi daf koy jël ci si jaaykat jaaykatu cigarette yi euh, ñu jël une partie aussi dédié ko à ces à ces à yoo xam ne ñi nga xam ni dañuy tox wala dañoo feebar ci tox. ñu mën jël en charge. je crois que loolu bu ñu ko defee daañu mën a am aussi ay. te volonté bi aussi lu ci lu ci moom mooy première chose bi sax parce que da gis ñoo xam ne dañuy dem pharmacie di jënd ay patch ak ay kenn xamul ay yeneen ak yeneen mantak tàngal ak yu bëri na daal ay mbir dañ naan ay alternative la pour nga mën a bàyyi wala sax ñenn ñi dañuy dem ci maamani ci sëriñ yi ngir ñu jàppale leen ci. waaye yooyu yëpp xam nga c'est de c'est de c'est des solutions alternatives quoi yoo xam ni dañuy dañ koy jéem a jël. Mm-hmm. mais mais li wóor te moo te wóor mooy euh, euh, pour nga bugg a bàyyi déjà tux comme mooy li nga wax volonté moo ci njëkk volonté il faut nga am volonté xam ne yow li ngay def baaxul nga bàyyi ko euh, yi ñuy jaay ci yenn place yi naan day tax nit ñi bàyyi tox yooyu bon je ne sais pas mais li wóor mooy am na aussi beneen solution beneen beneen affaire bu nekk mooy cigarette électronique bi am na ñu ko bëgg a considérer comme une solution qui qui peut faire boo xam ne boo koy def xëy na dina wàññi li ngay tux mais man je je ne le crois pas moi je considère que cigarette moom cigarette la te comme que euh, cigarette électronique dafa am un fond boo xam ni ci biir ci ci biir produit bi dafa am nicotine te nicotine moom mooy tax nit ñi di di dé di dépendant nga bugg a bàyyi doo mën a bàyyi mm. donc cigarette électronique man gaw ma ni loolu mën na tax nit wàññi tox wala mu bàyyi ba noppi mu am aussi beneen phénomène boo xam ne aussi vraiment c'est très déplorable mooy li ñuy wooye la chicha la. te xale yi dañ koo jël te bëgg ko torop sax. te ñeme ko mais Sénégal li fi xew c'est une catastrophe. Mm. tey jii ak tout coin de quartier da gis léegi sax dañuy tijji ay ay coin yoo xam ni c'est pour fumer de la chicha. Mm-hmm. loolu léegi dafa mel ni genre mode la. mais justement parce que nit ñi dañoo xamul. Mm. mais bu ñu xamoon mais duñ ci foofu duñ ko jege parents yi am nañ ci part de responsabilité. mais ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo ñëw di installer ces lieux où on fume de la chicha am nañ ci part de responsabilité part de responsabilité mooy lan mooy déjà ñoom bu ñuy tox xale yi bu ñuy tox il sont peut-être ay dix personnes nañu toog di tox te benn te te benn pipe la ñuy jël di ko passante mm. mais parmi ces gosses là yu toog di tux noonu wala ces jeunes là mais certainement am na ci koo xam ne am na benn maladie boo xam ne dafay wàlle mm-hmm. loolu déjà c'est un problème yow da ngay toog di toog di parce que xale nga wala ngay dugg ci yu mel noonu mais bu ëllëgee mën nga développer feebar boo xam ne yow amoo ko woon fa nga doxoon di toog ak sa ay morom foofu nga ko jël gis nañu fii ci euh, euh, fii ci euh, Médina mm-hmm. benn place boo xam ni mais on enregistré nañ fa benn petite fille qui a peut cinq c' est dans les c' est dans les réseaux mm. sociaux. ci mu nekkoon ci réseaux sociaux mais muy tux fi chicha mel ne kuy kuy naan café wala kuy mais j'ai dit que mais ça une catastrophe. loolu déjà dafa nekk loo xam ni vraiment ñun jël nañ ko en charge aussi et que on considère que ku ko fi defati en tout cas ñun daañu la yóbbu ci yoon. Mm-hmm. waaw qui que tu sois nag ak koo mënti doon daañu la yóbbu ci yoon. waaw parce que mm-hmm. on considère kenn amul droit di exposition ay doom ci condition yi surtout ay xale yu jigéen. mais tey jii Sénégal mais on peut considérer que ni xale yu góor yi di toxee noonu la xale yu jigéen ñi toor dafa mel ni sax dafa am féminisation ci tox mi. mais loolu dëgg la. Mm. te sigaar jigéen baaxul ci góor mais ci jigéen la gën bon. parce que mm. parce que dafa am ay conséquences yoo xam ni euh, ci jigéen la gën a bon jigéen boo xam ne dafa war am doom wala mu voilà parce que on dit que même entre jigéen buy tux ak jigéen bu dul tox bu ñu amee doom doo euh, doomu jigéen bu dul tux moo gën a intelligent mm. doomu kii tox parce que c' est vrai que dafa joué. ci faculté bi nga xam ni que vraiment loolu aussi les mères de famille war nañ ko gën a comprendre. Mm. ñu vraiment ñu bañ jege cigarette parce que yow tey jii même su fekkee ne da nga am doom euh, ngay ndàmbal ngay nàmpal euh, ngay nàmpal sa doom di di tox nicotine bi dafay jaar ci meew mi di ko. sa sa doom sa sa sa doom di ko nàmp. Mm. loolu aussi les mères fumeuses là war nañ ko comprendre ni que. bu ñuy tox di nàmpal seen doom c'est comme si dañuy toxloo seen ay doom parce que meew mi produit bi daf ciy jaar dem ci xale bi. Mm. loolu aussi mu nekk beneen dimension boo xam ne aussi Euh, vraiment je crois que c' est un combat qui qui qui vraiment bu embrasser beaucoup de kii boo xam ne nit ñi daal war nañ ci gën a toog gën ci réfléchir. gën ci réfléchir voilà daanaka li des ci émission bi bariwul mais mënuñu euh, invité la fii te waxuñu ci seen jafe-jafe yéen au niveau de la LISTAB. Mm-hmm. donc amoon ngeen fi ay coow ay jamono ba fu mu toll nii ñii dem aw nii ñii aw na le ku nekk dem sa sa pàcc. Mm-hmm. Euh, yow nga ànd ak Djibril Wele ñeneen ñi des fële tey ji mbir moomu. est-ce que am na décanter boo xam ne am na ci est-ce que fas yéene ngeen àndaat doon benn voilà ndax xàccandoo doo la ñu wax. Euh, xam nga àddina moom euh, kenn mënul ñëpp ànd ak yow. Mm. yàlla mi nga xam ne sax moom moo ñu sàkk loolu amu ko. Mm. Euh, ay nit aussi bu ñu nekkee ci àddina certainement de temps en temps mën nañu am ay difficultés. Mm-hmm. mais ñun on considère que c'est un c'est quelque chose qui s'est passé te loolu jàll na. parce que mm-hmm. tey jii li woon mooy. euh, sur le plan administratif et au niveau de l'État euh, ñun euh, ñun la état bi reconnaître parce que ñun ñoo yore le dernier acte administratif bi nga xam ne ministère de l'intérieur moom la délivré ce qui fait que aujourd'hui loolu sax du pour ñun du du problème le problème mooy euh, on appelle à vraiment à ce que tout le monde se retrouve parce que xeex bu mel ni boo koy xeex aussi ñëpp war a ànd Euh, bon ay jafe-jafe nag du ñàkk ci àddina ay nit bu ñuy ànd peut que de temps en temps mën nañu am quelques difficultés mais nous considérons que loolu c'est derrière nous parce que de toutes les façons euh, la réalité aujourd'hui au niveau du Sénégal c'est que c'est nous qui représentons la Ligue sénégalaise contre le tabac mhm. parce que man bi ma mujjee invité wele daf ma ne woon am na ci ay tànk yu ngeen nekk xaw ma nag <laughs> waaye euh, dafa mel ni daal affaire yi mu jul antu kon. non non non non antu na parce que on a pu se retrouver toog nañu waxtaan on a trouvé une solution. donc je crois que man daal je crois que ça c' est c' est une question qui derrière nous. Mm. et que aujourd'hui ku ñu jàppale daal da nga da nga ñu war a gën a jàppale ñu gën a ànd. Mm-hmm. parce que xeex ñu on considère que euh, ñëpp am nañ ci place. surtout ñi nga xam ni ñi nga xam ni bi ñu koy commencé comme ñun ak ñeneen ñoo fi nekkoon. Mm-hmm. di di ko di ko xeex. Mm-hmm. man je suis pas pour l' exclusion je suis pour euh, nit ñi ànd ànd liggéey euh, parce que ñu li ñuy xeex xeexuñu ko pour ñun on le fait pour nos enfants on le fait pour pour le Sénégal. on considère que euh, bon jafe-jafe bi aussi bu amee bu passé dañu xam ni passé na. Mm-hmm. ñëpp àndaat continuer di liggéey. voilà wax ngeen ci seen i plan d'action que ne fas yéene ngeen defaat le tour des foyers religieux pour que décret d'application bi mën a antu est-ce que tàmbali ngeen ko. non tàmbali gën ko mais dans quelques jours lañ koy commencer. Mm-hmm. Euh, parce que li ma la wax on considère que am na xeex yoo xam ne boo koy xeex Sénégal. Mm-hmm. il est obligatoire que nga jaar ci yenn yoon yi. Mm-hmm. mooy chef religieux yi ak ñu mel noonu. parce que ñoom tey jii ñoom dafa yàlla teg. quoi qu'on dise ak loo fi mën a wax aussi ñoom tey ji soo soxlaa dara ci réew mi yenn affaires yi tu obligé nga dem ci ñoom nga wax ak ñoom parce que ñoom am nañu faculté ak possibilité jël seen téléphone léegi woo président de la république wax ak moom ñu loolu bu bu ñu amoon cette possibilité la mhm. mais ñun dañuy dem directement ci moom mais comme que ñoom ñoo am boobu faculté ak boobu possibilité on considère que ak ba noppi ñoom la nit ñi déggal aussi parce que ñoom ñooy wax nit ñi tey jii am na fi ay chefs religieux yoo xam ne bu ne ñëpp jaar à droite ñëpp jaar a droite bu ñëpp nañ jaar à gauche ñëpp jaar à mm-hmm. état bi loolu am xam na ko xam na ñoom nit xam nañu chef religieux yi ñoom li ñu fii représenté. Mm-hmm. et je crois que euh, am na une inti une certaine intelligence bu nekk seen diggante qui permet que problème yu mel nii bu amee bu boo gisee nit ñi di xëy suba am problème dem Touba wala Tivaouane wala feneen dañuy yaakaar ni que bu ñu demee ci ñooñu ñooñu daan leen gën a mën jàppale. pour que euh, pour que li ñuy wut yàlla jàppale ni pour ñu am ko. Mhm. voilà euh, daanaka émission bi jeex na xanaa ñu may la rek nga euh, wax peut-être ndénkaane bi ngay dénk askan wi surtout ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo pon bëgg ci jóge yu demee noonu. waaw ñi bugg a bugg a jëfandikoo pon te bugg génn. dañu dañ leen di demander déjà ñu xam ne que cigarette moom du loo xam ne am na njëriñ amul njëriñ kenn. Euh, te loolu waruñu cee dugg seen ay doom waruñu cee dugg seen ay jabar waruñu cee dugg euh, dañoo considérer ni que réew yu nga xam ni dañoo ndóol comme suñu réew yi nga xam ne amuñu moyen amuñu doole euh, dañoo war a jël en charge totalement en tout cas ñu gën a jël en charge affaire u tux pon ci suñu réew yi parce que comme ni ma ko waxee rek ñi nga xam ni ñoom la ñoom la ñi ñiy jaay sigaar ñi nga xam ne ñooñu lañu gën a soxla mooy xale yu ndaw yi mm-hmm. Euh, parce que ñi nga xam ne moom commencé nañu tux ba accro ñooñu ñiy jaay si soxlaatu nañ parce que xam nañ jàpp nañ leen. Mhm. donc ñun daal li ñuy ñaan mooy famille yi enseignants yi tout le monde ñëpp jàpp ci. pour que en tout cas xeex bi euh, mu nekk euh, xeex boo xam ni dafay am dimension nationale ba nga xam ni bu ñu demee ba ci kanam daañu ci gis ay résultats yoo xam ni daañu xam ni que ñun suñ doon suñ li ñu doon xeex am na njëriñ et que résultats yi tey mi ngi nii loolu daal la ñaan Sénégalais yi. ñu gën koo comprendre gën ñoo jàppale ñëw ànd ak ñun ci xeex bi voilà léegi nag ku ñu bëgg a contacter wala nga bëgg am euh, relation ak ñun euh, mën naa joxe numéro téléphone boo xam ne boo ñu ci wooyee. Mhm. ñun daañ la jël. Mhm. mooy le 77 631. 62 27. voilà merci beaucoup. voilà euh, loolu lu am solo la pour que vraiment mën a jàppale ñi nga xam ne vraiment dañu am ay jafe-jafe. bëgg bàyyi tox ñu mën a ñu mën leen orienter parce que bëri na ñoo xam ne bëgg nañu ko mais du ñu xam fu ñuy jaar mhm. donc lu am solo ñu lay jaajëfal ñu may la nga tàggatoo ak mbokki auditeurs yi. waaw maa leen di gërëm di nuyu di di gërëm Rewmi mi FM vraiment euh, yéen yàgg ngeen ñoo invité seen ay. seen ay émission euh, yaa ngeen am ak ñun relation euh, parce que yéen xam naa ni conscient ngeen ci ci problème de tabac parce que daf leen intéressé particulièrement euh, ce qu'on mooy avoir encore plus de partenariat ak yéen ñu xool quelle est la meilleure formule pour que de temps en temps bu ñu amee question boo xam ne daf ñu kii dafa taxaw ñu mën a ñëw comme ni ngeen ko defee nii ñu ñu ci wax vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Mhm. ñu lay jaajëfal également Amadou Moustapha Gaye nekk euh, njiital listab di Ligue sénégalaise contre le tabac nekk kuréel boo xam ne dafay xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllu xeexum poon fii ci biir euh, Sénégal tey ñu doon waxtaan ci li nga xam ne moom mooy yéex yéex yi am ci euh, décret d'application yi nga xam ne nag kon am na ci wàll woowu ñuy fàttali nag loi bi daanaka ñu ngi ko voté atum 2014 ba léegi waaye décret d'application yi daal. moom moo ci desandi ñu amoon mbégte bu baax a baax di ko dalal tey jii di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñu doon déglu ci la 97.5 may fàttali itam ni mun ngeen amaat émission bi ci sunu euh, kon euh, compte YouTube di euh, réew mi Info naka noone itamit ci w www point réew mi point comme foofu itamit bu ngeen fa demee mun ngeen déglu émission bi ñu leen di dig daje rek vendredi prochain. incha allah beneen thème ak beneen invité ci la 97.5 matu Diallo moo nekkoon ci kàddu gi di leen jaajëfalaat bu baax a baax jàmm ak jàmm.